Abdoulaye Martin Samb deuxième adjoint au maire de la Médina. Bamba Fall jàpp naa ne bi muy dugg kaso feebarul parce que nekk nañu ak moom pratiquement ñaar fukki at ak juróom avant muy nekk maire ak yooyu yëpp xam nañ ko Bamba Fall mosul feebar donc euh, biñ koy arrêté dugal ko ci kaso bi ak condition de détention yu métti yi kenn xamul luñ ko def rëbës ak lu ko fa dal bon dañuy yeewu benn suba ñu ne ñu balaa mu ngi ci coma diabétique.

lañ ko jëlaatee tey ci suba delloo ko rëbës donc ñu jàpp ne loolu acharnement la ndax euh, au moins même suñ ko libéré wul lañ ko bàyyi hôpital mu faju loolu mooy dëgg parce que vraiment état de santé am ça donc munuñu toog tey ñu jël ko rek yóbbu ci kaso bi nii kaso ba ñëpp xam nañ ne amul docteur amul médecin amul dara condition yu méttee fa am dafa tàng vraiment ñu ngi naan dañ ko peinture ay peinture yu bees kenn xamul luñ ko peinturé donc de ce fait que Bamba santeem ça nous préoccupe donc mënuñu jël nag nit ku koo xamante ne c'est un maire ñu ñu ñu élire ko démocratiquement dëkkam yaakaar ko muy liggéeyal dëkkam sàccul fenul reyul nit deful dara ñu jàpp ko noonu ndax ay raisons politiques rek dugal ci kaso bi ba santeem dégradé wu à ce point là donc dama jàpp ne Bamba il est temps que ñu libéré ko. avant qu'il ne soit trop tard donc nag lépp lu nga xam nam aussi Arriver na Bamba en prison wala xew na en prison ñoom ñooy responsable yi actuellement ñun dañ leen di bàyyi seen responsabilité amatuñu dara luñ ci wax amatuñu dara luñ ci def ndax lépp lu ñu mënoon wax wax nañ ko lépp lu ñu mënoon def def nañ ko ba Sénégal yëpp xam nañ ne détention Bamba Fall c'est arbitraire dañ ko jaay doole tëj ko acharné wu ci koom su dee Bamba dafa def lu sénégalais yëgul nañ ñu ko wax su dee Bamba dafa euh, terroriste la wala criminel la nañ ko ñu ko wax parce que traitement bii ñu koy defal c'est indigne d'un maire c'est indigne d'un citoyen honnête comme Bamba Fall donc xamuñu nag acharnement bi lu ko lu ko waral su dee mandat deuxième mandat Macky Sall moo tax ñu bëgg a rey Bamba Fall ci kaso bi mais nañ ñu ko wax su dee Bamba dañu bëgg kut ko kut noppiloo ko moo tax ñu ñu ñu ñu ñu koy def lu nekk ci kaso bi bu mu feebar ni kenn ba kenn ay mbokkam jaaxle ah, ay collaborateur am jaaxle ñëpp jaaxle vraiment je crois que Sénégal il est temps que ñu wax parce que kenn xamul dëkk bi fu mu jëm waaw ñi ñi nag sonn nañu jaaxle nañu ci mbirum Bamba Fall mais kenn amatu ci pexe je crois que nag sëriñ si ak ñi nga xam ne ñooy réew mi nañ ci wax avant qu'il ne soit trop parce que luy ci ñag bi la jëm donc mbiru Bamba Fall ëpp na tuuru na te lu ëpp forcément donc vraiment man xamatuma nu ma qualifier fait yi nga xamante ne parce que au moins même suñ ko téye ne yoon day def mais au moins nit ki soo ko téye ba mu ba médecin yi xool ko ne dafa feebar bañ naan coma diabétique coma diabétique mën nga ci génn ci trois jours c'est pas possible diabète bu xasee installé wu jëm donc Bamba est malade nañ ko mu ñibi sinon ñu bàyyi ko hôpital mu faju bo parce que mënul def convalescence ci la prison La prison c'est condition de détention yi dafa pour un malade nañ ko bàyyi mu faju Pape Diop conseil municipal chargé des travaux de la commune Bamba koy convoqué ñu fekk en pleine réunion ñu ngi réunion ñu ndil ko convocation mu wuy ji ba mu wuy jee nous yaakaar laaj ak tontu la rek mu dem parce que lu ñu xam savons, ko xamné takkoo santaane woo jege ñëw problème boobu dara ñu woola parce que le jour la dont on parle le 5 Bamba est parti euh, la bas pour dem bureau politique ba mu demee këram la añi jee jóge fa ñëw ci man chantier à Gibraltar fa toog di naan ataaya di waxtaan donc pour man Bamba kenn waru ko bu liñ ko convoqué laaj ak tontu mu ñibbi këram à notre grande surprise ñu gis ñu ñu ne jàpp baam Bamba jàpp nañ Bamba defeere nañ defeere nañ ci loo xam ne nit ki taxul ba du ñëwaatee ñuy demande liberté provisoire ñu ne may nan nu ko ñu daal di ñëw ba ci biir ñu ne mayaatu nu ko mais kon acharnement la. gis nga parti socialiste yàlla def nu dimbale da nekk ay xale yu ndaw xàmmee suñuy waajur tàggat nu ci parti socialiste bu ma la nee man def naa lu ëpp vingt cinq ans ci parti socialiste da lay jaaxal parce que bare na fi responsable yu fi nekk maa leen jiitu ci parti bi. tey dugg à l'intérieur du pays amul dëkk bu ma demul Sénégal ndax parti socialiste donc violence xam nañ ko ci biir parti socialiste xam nañ ñooy violence ci parti socialiste. ci ñëk dem hôpital la bok. ci njëkk dem hôpital mais bama fa démé, j'étais jusque là sincèrement parce que loolu waral sax pour ma gis ko parce que dama ñëw j'ai boudé déconné foofu ba ñu bàyyi ma ma gis ko mais loolu lu ma métti sama àddina la image boobu daf may marqué ba léegi. maa ngi ko fekk mu ngi tëdd ñu samp ko ay perfusion takkal ko ay yooyu ci télévision rek laa ko daan gis ba léegi je n'arrive pas à dormir yàlla daf ñuy atte suba wallahi ku xalaat ni yàlla amul yaa ngi nax sa bopp te yàlla dana leen laaj na naka lañu sàmmee woon njaboot gi. frère am bu ma jot bi ma àndal dem prison parce que damay dem ci taxi bi pour dem principal ñu woo ma ne ma ñu ngi doon di dem prison frère am ba ma ko njëkkee gis daf ma ne. Bamba a 15 10 de tension 15 10 de tension man xawma ci yoy dara mais médecin yi ñu ko jot a wax nee Il fu mu ne ni baxul loolu baxul xam nga ki am 15 10 de tension nga wat ko fele yalla dal mo xam mais nan nanu fexé ba doomu jàmm rek mu delu ci jàmm. Papa Djibril Koulibaly di doyen du conseil municipal de la commune de Médina. la veille def naa ko visite def ak une réunion de travail. ca rëbës la veille ba booru timis ñoo nekk ci fajar gi yàlla def na aussi ci ñi ko jëkk yëg vers six heures vingt minutes ci laa bokk euh, bi nu ñëwee nag waxuñu ma ni ma Bamba dafa dem hôpital dañu ne ma rek solal sa yére gaawal sol sa yére wallaay yàlla bi ma tiim xam na ni hôpital ba laa julli falaa seulement falaa jàppe falaa jullee fajar bi ma ñëwee ñu ne ma Bamba la wax dëgg yàlla jaaxle woon naa ndax koo xam ni gis nga ko la veille ngeen def ak moom réunion dara dara dara jotu ko ñu wax li ñuy wax yépp ñu tàggoo ci jàmm ñu yeewu ay 6 heures du matin fëgg sa buntu kër ni la gaawal yaa nga demal hôpital wax dëgg yàlla jaaxal lu nek xalaatoon naa ko lu nekk nag xalaatoon ci alhamdulillah waaw man yàlla may na ma dugg génn ba tekk ba ca saal ban ko tëral waaw wax dëgg yàlla gis naa ko fekk na boobu xelam ba ñu jotante sànnante ay kàddu waaw kàddu état de santé am li ko jot li muy ressentir à l'heure actuelle ak ni mu ñëwee ci fajar gi ci guddi gi lu mu yëg ba ci fajar gi ñu évacuer ko man ak moom waxante nañ ci loolu waaw ci fajar gi walla ci guddi gi euh, yëgg dégg nañu ay bruit muy yooxu waaw xam naa boobu chef de chambre am gis ko gis état am xam ni état doxatul

dossier ba téeméer ak ñeent fukki nit interrogé nañ leen ci affaire boobu du benn nit du benn doomu aadama bu ni ba gis naa Bamba xëpp suuf ni gis naa Bamba xëpp ndox wala Bamba sant na ma lii donc ñu mën a wax ni dossier bi dossier politique la politique yi ñoo koy réglé adversaire politique la boo xam ni yaakaar nañ suñ ko bàyyee ci jamono yi ñu jëm jëm législative yi dana wàññi doole suñu adversaire yi ñu ne nañ ko nëbb jant bi pour mën a liggéey seen liggéey ndax ñu mën a faluwaat waaye nag suñu borom bi dañuy fàtte ni suñu borom bi moom mooy fale suñu borom bi mooy joxe doole suñu borom bi mooy jox nit ñooy mooy mooy def ci xolu nit ñi koo xam ne moo war a falu donc Bamba suñ ko tëjee ay junne junne at yi du tere la war a am dana am waaw bàmba deful dara c'est un innocent boo xam ni dañ ko tëj léegi bàmba dootul sax prisonnier normal Bamba est devenu un séquestré, à la fois un séquestré politique et à la fois un séquestré euh, juridique.